dal leen ak jàmm ami vi li gën a ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek cool jamaa li nga xamante ko yëkkati moom fi nga xamante ne moom mooy ca ndungu seen ba noppi rek placé ko sous mandat de dépôt niki aljuma yema fukki fan ak juróom ci weeru décembre jamono ji ñuy wax ak yéen kii di juge cabinet bu tribunal grande instance bu ndakaaru nag kii di Mamadou Seck ji moom nag nee na yooyu les mbir yóbboogul ko fi nga xamante ne rek moom mooy justice waaye nag ak lépp lu ci ci ti doon rek nañu jàpp ne nag eh, ancien directeur général ba woon bu dem dikk bi eh, a di nañ koy placé sous mandat de dépôt ginnaaw ba mu yëkkatee nag cool jamaam tudd ci kii di Aly Ngouille Ndiaye Macky Sall ak homme d'affaires bi ñu wooyee Mimrat du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info